mbokk yi euh, ñu ngi leen di nuyu bu ñu sante yàlla ba noppi julli ci yont yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam euh, bu fekkee émission yi mën nañu ko tuddee wanal sa gox euh, ñu ñëw fii tey fi nga xam ni moom moo di kër gu mag Médinatoul kër sëñ Touba ci fi nga xam ne su ngeen jëmee yoonu Touba ci raay bi juste suñu kër bàyyi sëriñ bàcc jigal mu Cheikh Mor Mbaye Cissé yéen a ngi koy jot ci seen loxo càmmoñ su fekkee da ngeen jóge Touba jëm si Njaareem ci raay bi sus yéen a ngi koy jot seen côté ndeyjoor li sabab suñu ñëw fii nag mooy am yéene xamale suñu bàyyi sëñ bàcc jigal ak askan wi mu bind lu am solo biñ ci njëkkee mooy euh, taalif bi nga xam ne bind na ko di ci xamle lenn ci taxawaayu sëñ moom Mbaye Cissé bi nga xam ne ku ko wax wax alxuraan Ma'am, am tamit leneen lo xamni bind nako jëmul yu ko ab soñé waye am benen téré bo xamni jamono ji mi ngi koy bind mi ngi ci aw yoon mu koy bind ci Sëriñ Assane Fall ak maam Cheikh rafal Fall Baabul Muridiin sabab ñu top fi tay ak euh, soxna Ami Cissé mom leeru seigne mom bay Cissé la ñuko ñaanal guddu fan gu ànd wer top fi ak seigne bay Sabu bay Fall mi ngeen di gis ñu xam ko ci walu xasida ak walu talif ak seigne son yi bu mbaw ak suñu bay seigne jigal ak euh, seigne martara ah? wala martar Diouf Euh, dañu daal di dugg ci waxtaan wi euh, suñu nuyoo ba noppi euh, soxna Amy Cissé ci yow la ñuy njëkkee dañ lay nuyu ba noppi bàyyi la nga nuyu ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan bi la télévision di Moubarak TV. bismillahi mina sheytaani rajim rabbi maa ngi ziare bu baax mbokk yi njaareem di nuyu waa njaareem gépp ak li ko wër eh, nekk ci émission bi ñuy wax wane sa gox ñu nekk fii ci kër Baye Bàcci Jigal mu nekk kenn ci kër sëñ Mor Mbaye Cissé di suñu xalifa mën nañ ko ko tuddee ndax dafa bokk ci kër sëñ moon Mbaye Cissé di suñu wayjur tamit mën nañ ko ko tuddee ndax féete nañu fa ginnaaw ma ko nuyoo maa ngi nuyu ñi ma toogandoo ci jataay bi di nuyu sëñ Ibra Diop yow mi nga xam ne yow yaa yow émission bi di ko anime di nuyu sëñ mbay Sow bu baax nga xam ne kër sëñ Mor ñëpp xam nañ ko wala fali sëñ Mor Mbaye si yu bari ci moom lañ koy déggee. di ko way wayu neex di ko ñaanal yàlla wéral baatam te yàggal ko fii ci bàkki Seexul Xadim di ñaanal sëriñ Soy bu Mbow mi xam ne baayam baayam Mbow ñëpp ko xam ak sëñ Mor Mbaye Cissé ndax kenn umpale na sëñ Mor assurance yi mu doon joxe daawul joxe kayitu kese da koy ba noppi doog la koy jox baayam Mbow moom moo féete woon aw gi moo ko ñuy wax Baye Bas Faso di ko ñaanal suñu borom yàlla jéggal leen te yërëm leen ci bàkki Seexul Xadim fañ tëdd di nuyu sëñ Soy bu baax ñu tudde ko suñu mag suñu xarit sëñ Soy bu Cissé ko ñaanal yow yàlla yàlla yokkat yàggal taxawaayam di nuyu sëñ Makhtar Diouf mi ñu toogandool di mbokku taalibe eh, nuyoo bi nag maa ngi ciy jiital suñu kilifa ñun ñëpp di sëriñ Mountakha Bachir Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ci barke Seexul Xadim ak mboolem njabootu Seexul Xadim gi di nuyu sëriñ Cheikh Jëmb Fall di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi di nuyu sëñ Amdi Khady Fall day kenn ci ñun di kenn ci kër sëñ moom mu yàgg fi te wér ak mboolem njabootu maam Cheikh Fall gi ba di nuyu sama xalifa di suñu sëriñ di suñu xarit di suñu mag di suñu lépp di suñu baay di Cheikh Abdou Lahad mu mi fi nekkal sëñ Mame Mbaye Cissé di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te mu wér taxawaayam yal na gën a yàgg ci barke Serigne Touba ndax macha allah ñun jooyatuñu dara mate na ko macha allah yal na ko yàlla gën a sàmm yal na ko aar naal li mu sumb ci biir kër Serigne moom Mbaye Cissé yal na egg ci kanamam ñu fekki ko tal ko ma sumb yeneen naal ñu fekk ko tal ko ci kàttanu yàlla di nuyu dongo ca biir kër ga yëpp bàyyi ma kenn di la ñaanal képp ku fi si ci daara ji te xam-xam tax la jóg ak ulu baax yan na ko dajeeg moom nga am ko ni ko borom daara ji doon ñaan di ko fàggu ci barke Serigne Touba di nuyu soxna Penda Cissé di sama mag di sama xarit mënuma ko bañ a nuyu ndax di sama mag di sama lépp di sama bàjjen sax tekki ginnaaw loolu maa ngi nuyu sama mag ji ma fekk ci biir kër gi di soxna Ndeye Diop Cissé ci moom laa waroon jiitu sax ndax mooy suñu xalifa ci ñun jigéen ñi ñun ñëpp di ko ñaanal taxawaayam ci kër gi yan na yàgg te wér bu baax Serigne soxna Ndeye Tuuti soxna Aliou Cissé sëñ Aliou Cissé maa ngi koy ma ko ci Italie ndax lu mu sori sori tax ñu ko ndax ci ñun la bokk te suñu xol da koy saa su ne di nuyu nag sama jëwriñ sama xarit ku ñëpp xam di sëriñ Soxna bu Cissé di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam ci barke Seexul Xadim. soxna Ami Cissé euh, di leer ci sëñ Mourou Mbaye Cissé euh, ku xam alxuraan nag xam sëñ Mourou Mbaye Cissé ni mu ko waxee noonu la ñu ñaanal Cheikh Abdoul Ahad taxawaay bi yàgg te ànd bi ndax fa waajurum tegoon tànkam ba léegi fa la teg tànkam euh, sëñ mbay saw dañ lay nuyu euh, bàyyi di nga nuyu ak ñiy topp bi la télévision lu jiitu ñu dugg ak yow ci li nga xam ne moom moo di euh, euh, taalif bi nga xam ne suñu bàyyi sëñ bàcc jigal bind na ko jëmale ko ci Cheikh Mame mu tedd moom bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala bokki taalibe bokki jullit yi ñu ngi leen di ziar góor ak jigéen ma ak ndaw di ñaan suñu jataay bi saa borom ba xéewal ci am rek yàlla nañ ko bokk ak jaam ñëpp ci barke Sëriñ Tuubaa barkeb Sëriñ ne moo tax ñu toog fii tey jii di ñaan saa ba dolli ay leeram moo ak njabootam gépp sëñ Bassirou Cissé ba ci sëñ Abdou Cissé yàlla na saa ba dolli seen i leer barke alxuraan yàlla na wàcc ci seen kaw ak képp ku leen ko yéene ci barkeb Sëriñ Tuubaa Mbàkke ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant bu baax a baax a baax a baax ah, di fàttaliku sunu góor gu baax googu sëñ Mor Mbaye Cissé yàlla na saa ba dolli leeram li mu def ci alxuraan yal na ko sa borom ba fayee bu ko fayee yal nañ ca bokk ñun ñëpp ci barke Sëriñ Tuubaa jërëjëf jërëjëf eh, sëñ sëñ bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe ñu ngi leen di siyaare bu baax kenn ku nekk ci turam ak santam di siyaare sama sëriñ bi mi soxna Aminta Cissé maa ngi lay siyaar bu baax di la jox sa wàccuwaay di siyaare suñu baay bi sëñ Bàcc Jigal ak sëñ Ibra sëñ Mbay Saw ñu leen di siyaar bu baax di leen jox seen wàccuwaay. waaw tey ji dafa mel ni da ngeen ñëw ne seet ci sunu baay bi mu sëñ bàcc jigal waaw lu kooku day moom ku xam sëñ moor rek xam nga sëñ bàcc jigal xam nga ne moom léppam sëñ moor la ku bëgg sëñ moor la te waxtaanam lu mu sori sori sori sori du génn sëñ moor ak lu mu waxtaan wi sori sori sori du génn sëñ moor nee na ma nangam ak sàngam loolu lépp mooy waxtaanam kon dañ koy gën a ñaanal suñu borom yàggal ko fi mu yàgg fi lool te ànd na ko wér barki sëñ Tuubaa naa la yu mu fas a liggéeyal sëñ Mor Mbaye ko kàttan ak wér ko mën a àggalee barki sëñ Tuubaa tooy bu mbaw ci kàddu yi am solo yooyu mu jëmee suñu bàyyi sëñ Bàcc Jigal yàlla na taxawaay bi yegg te ànd ak wér ginnaaw nag euh, wax nañ ko kat la waaye yaroo ci keppaaru sëñ Mor Mbaye Cissé lii nga xam ne bind na ko jëmale ko ci sëñ Mor Mbaye Cissé moomu bari na ñoo xam ne ñu ngi topp rajo yi daanaka ci mbind moomu ci la ñu amee ay tegtal ci Cheikh Mamadou Mbaye Cissé moom nga xam ne fu nekk la nit doon jóge ci àddina ñëw di ko fekk si kon dañu daal jox sëñ Mbaye Sow mii mu duggal ñu ci mbind moomu nga xam ne ki nga xam ne sëñ Baye Bàcc Jigal mii ñu toogandool ci biir këram ci wanal sa gox tey moom moo ko bind sëñ Mbaye Sow kon bismillah ñu bàyyi ak ñi nga xam ne ñu ngi topp bi di télévision di Moubarak TV auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim haasihi taalif nasmuhu Bàcc Masamba Jigal في هيات سيق السير مون بيسيسه رضي الله عنه ونفعنا به برك برون توبا بسم الاله مانغي تامبلي واخ دي تدبور بو ماكبا اك نغورام بسم الاله مانغي تامبلي واخ دي تدبور بو ماكبا اك نغورام صاح جولي تي خير الخلق ماي سوبيمبا وآله تسنتن شيخ بامبا te yal na yàlla dotti mboolem xeewal ci xeeti Mustapha wi far leen jéggal gannaaw julleeg cant gi leen di mbal xam la la war nga def ko loolu may la fatili ko fatili saa kem kattan war na ma war samay moroom lu naa tan sëriñ moor mbay siise laay waxtaane li ma xam tebul ne waajewaane moo dambe mboolem xeeti baax yi lu baax waxal jëfam yi dañ na fépp donn na baatin jëf na baatin tekka mooy faggu teef gu faggu mosta ko ñaa baraama joor ñu naa ko njaase mooy way juram wa dëkk afe siise ma wax la baraama njur bel nga xam ne moor mbay booba ko fagul ba mu ñëwee njereem fekki sëriñ bi Cheikh Bamba naa ko dégg naa ñu ngi ci alquran sang man ko ak mokkal ko moo naa ko waaw sëriñ bana taril ma mu daldi dal baqara jëm naasi ba fajar muy jinnate kanaasi bam xaggale mu ne ko man gi wóor na waaye demal yaxal ko andi siiw ab diir bu gàtt góor bindeb kaamil andil ko Cheikh Bamba muy mbër kaamil Cheikh Bamba seetire banaa ko wow feddi liman gan ko waxoon ne wóor dal ko ne njaase man nga lool kaamil bi fëggub danam ne waaye may borom bi manaafiul xuraanu wal adiisi buur yàlla jox na ma ko njaase siite dal ne baraama soo ab kaamil lan moo di yool ba bam waxee ba àggal munaa salaasa dir amin ci ngurdu moom lañ ko daa xayma sëriñ ba i fardu mu dal di ko yebal ci samba job saam bindew kayit tafal ca bamba moo xam bind ca biir kayit wa yow borom saam nga teralal ma jëmu jooji ilooham ba mu demee ma samba yërle atar ba taf ko ci dënn ba ne kii borom ba yëkkati ñetti lim ba nekk téeméer ci nguur du jox baraama loolu moo ko nag kaamil ba naan ko yóbbul mbindum Serigne Touba mi moom lay màggal banjaase dellu see xibaar ko Bamba mu ne ko moom gi loola mooy baatin ba foofee la njaase jébuloo ca bamba cheikh bamba jox ko yool ba ak baatin ba dal ko ne jàng alxuraan ak jàngale sab cër la yow baraama dee ko xamle te fawu dang ciy jariñoo di jariñe loo bëgg def def ko ca dal koy soññ moor nee na junjuk cheikh bamba gam doon joxoñ bu yàgg mooy borom ba jariñu gaag jariñe gaag barkeel ga bamba ko wax bu yàgg mooy junjam ga fàttali koog fàttali saa kem kattan war na ma war samay morom lun attan Serigne Mor Mbaye tambilib liggéeyam yeew la xasaay ga dal di roy ci baayam gëm gëri jaal ya jiitu gëm Bamba la yor di dox doxiin wa ak pas-pas ba boole wayak fit ak taxaw ci dëgg sax ci jubak doy loo ndigal daar kang gis lu nekk dañ ne yu nekk dégg lu nekk xam na yu lu nekk waaye du tiit du rët du jàqi jaaxle kenn du ko xiixaan yàlla dal la faale nabbahtukum mahan alakad bada li xamla an araridan mu abada Cheikh Bamba ne njariñ ji ju coono ku sonu jariñu loolu wér mu dal di tàmbalee daaraam ja di jàngalee ka yare cay sun waaja njaal ben ga nag sa néew na doole daara ñaan be nag gis na lu nekk dañ na yu lu nekk dégg lu nekk xam na yu lu nekk waaye du tiit du rët du jàq yi jaaxle kenn du ko xeexaan yàlla daal la faaxle nabbaatukum mahan ala an araari dan mu abada cheikh bambane njariñ du jiitub coono ku sonn nag jariñu loolu wér na mu dal di tàmbulee doxal daaraam ja di jàngalee ka yare cay sun waaja njaal benn ganak saayir sa néew na doole baatin ba nag diis na te am nag jagle daara ja nag barkeel ga moom la doore ngir ña fa jànge ñëppay kaañ di foore yoonu murid wi wépp ak jullit yi ñëpp ko doyloo ca seen njaboot ya ndaw lu fa ñëw ab diir bi kaamil boole yar ak jikko yu baax te isallal moo tax sëriñ Abdou Latif ca lappe cheikh balla paati si fañ doon jàppe ca buntu kër maam cheikh afem mbàkke waxtu timis aw koor la maa ko fekke cheikh balla paati laaj aw jisiinam daaray sëriñ moor mbay ja aw jàngiinam na demeek jànginu daara sàngam sëriñ bi dal di tontu lay xalaatam daf ne ko fab saa doom ji yóbbu kër moor mo banyak jang dara tok fa abdir moo ma gënal yóbbu ko dara jooja bam wattu alxuraan de mooy jawaab ja xam naa yarak taalibe gaag ay jikko la taamu moo jooja wax mu wax ko badd ga dara ja ci réew mi jàngu bariir cey waxi bamba mbër mi bawol kajoor la fa dale ba saalum di wal wali ku ñëw ne maalum kër mu doon ci réew mi tey ko diine murit la mbaab xaadir la mbaab tiijaan la mbooloo nga fay bawoo di ñëw di jàng si ku ñëw ba dellu ña nga fa bàyyi daw si na kuñ naa fi borom xam-xam la te fa ba ñu naan alim la am baraana fii sëriñ su jaar nañ fa yër fa xabloo seen barke baraana tey ci réew mi tey ñuy seexu fala ñuy ñu jànge baada oo lañ baraana ñuy commerce tey duñ jeexal ak homme d'affaires yu affaire ba géejël alluwa yañ daan jànge man ng fa ak xaaju suuf ya barke xam naa yàggul foo dem Europe mba Amérique ci réew gis ña fa jaar bokk ca ñooy tànneef ya doon moodu yooyu kaang la ñu teg ca foore tontul masala duñ ci laaj ay téere bara nañu ci daara ji lañ jaare jàng ba mokkal yor fa ay ay téere newoon na moom ñaan na boroomam yàlla ci barke Cheikh Bamba satu mamballa képp ku jaar ci daara ji ba génn ñay say moroom dootoo ci ñeetaan kenn fàttali kook fàttali saa kem kattan war na ma war samay morom lun attan amoon na ay jàngalekat kaang foore yoman liggéey ba lool te daawuñ doore am kaang yu koy bindal xasaayidam ya ak it yeneen téere ya ak musaf ya wutoon na it wuude yu aw dollam ya ak téere ñaan yaak jaapuray kaamil ya sañ samsu njaay ca mbare njaay ca joor ga ragal na yàlla kaang la am na i dongo am na ngërëm ca cerno ma yaakaar ja ak moodu pay fetto ma doon jawrin ja noon na ma daaray moor ja nekku njurbel mooy ndeyi mboolem daara yam fa nekkal bu doon garab la datt ba moo sax foofa fu daara nekk car ba moo tim foofa jox naa ko foofa mbaxanam curu cara ak ñaari téeméer googa góor xam na dara keroog sëriñ Ahmed Sugoy saa seede moom góor ga na ko am na firnde ba bis ba dellu see la góor ga faatu na aljanna mbiram du laatu ku ñeme woon liggéey la masta wàcc du nopp dal ku ñeme woon liggéey la masta wàcc doo na puloo kay dallu masta dàcc masta nelaw dara fil awqaati waxtu wu ñëw mu duy ko fil xayraati daana liggéey ñetti liggéey yu bokkul ci jënn jëmm jiite loola yembul yi saa nga dégg muy tari xasaayit di topp alxuraanam moo di abit wa ak soo mbaa tari alxuraanam di topp ay xasaayit mbaa tey ñaanam boole jëfanteeg nit ña lam leen warlul ci seeni aajo kookatal ta dallu saa yu xëyee ñay beqi ñoom lay toppal teg ca borom kaamil ya mooy ña mokkal woo nag ña koy bindal xasaidam ya soog leen a toppal tey wax ak ganam ya ci lii la daan yendu ba ñëpp tëdd mosul nekkoon ti ne ba suuf sedd ndax nee na dox ak a taxaw du ab dox dox kay taxaw bokku ca lii la daan wax nee bis damay liggéey di xool montar bi ba ñaari waxtu ma ne ñuun ca lalba ba ma jugee mu dem ci ñeenti waxtu rawe ma ñaari waxtu dal may jiitu ma dal ne montar rek moo wax dëgg dox kay taxaw bokku ca lee di dëgg ndax ku taxaw lu luuti tuur ñu raw la amaana ko rawoon itam far dab la ku dëgëroon te way la am nag ful la ca la nekk amu fit jàmbaar la amoon na it ijaaba ñëpp daa ñëw fu nekk nit ba woo fa mel ni xew xew boole na yattu gan ci benn yoor yoor yooyu boole leen jafe na yàlla mooy buur Cheikh Abdoul Ahad mooy ko fa njëkk xëy si ba na maam alaaji abdu aksi ne tuuti Ceerno Muntaxa tal yegsi barakallahu yi legan puñ xay si mboolem tarixa yaak yeneeni diine ñëpp fa daan ñëw jooja way du cuune ñu siiw ña ñëpp ñay way ak ñay lamb ak ñay rawante ñëpp daanañ yemb soo fa gaan wondel sa bët fa saal ba koo ma sa dégg dégg fa gis nataal ba keroog ba Seex Tijaan ñëwee fa kër ga laaj ko soley portale jubloom gi mu ne ku nit ku nekk am na soppeem bëgg ku ñëw dana fi fekk waayam jariñu gaag jariñe gaag barkeel ga bamba ko bu yàgg mooy junjam ga fàttali koog fàttali saa kem kàttan war na ma war samay waram nun attan ma wax la tuuti nag cennam daa ñaane raw na wilaaya raw na sañ-sañ maane la muy faje haajo nga wonta nobba mbaa xel ma mbaa làmmiñ wa mbaa te xol ba mbaa xali tolluwaay la mbaa waxtoom la lu mu ci doon bu donni bal kartuus la ma wax la tuuti nag canam daa ñaane raw na wilaaya raw na sañ-sañ maane la muy faje haajo nga wonta nobba mbaa xel ma mbaa làmmiñ wa mbaa te xol ba mbaa xali tolluwaay la mbaa waxtoom la réew mu ci doon bu doon ni bal cartouche la téeméeri nit ak ku nekk sa aajo te bëkke wuñ ay aajo déglul waaju mu dal di bindu aaya boole leen ko dugal ca soxlay ñëpp mboolem faj ko lum njëkk jot mu di kayit mba téere wala ci waxtaan mel ni sax kuy buure dana ci faj ay aajo tolluwaay la te moo fa moo juboog buur yàlla am na ku ñëw bis di ko ñaan loo soxna monsieur madame la waxte téewul am na am na jigéen nuy ñaan lu ay woroom kër mu dal ne tàllal leen ci wér yi ngeen jar Cheikh Mbacke ak Cheikh Modou moom la ñaane Cheikh Bayou Góor teg Cheikh Ahmad Tidiane na taf seeni loxo ni leen jug leen dem ca weer wa ñëpp sey kii jar naa gëm am ñaan ñu ñëw naa ko dañoo bëggante te sunu way jur yi dañoo bañante seen ñaari la fi la daldi di faste daal di ne leen dog na dageen ngeen takkante gis naa jigéen ñëw naa ko man sey naa at te aw ma doom xam naa ne leem a màggat mu naa ko faal sa jaada ko nalaal sa biir léegi nga ëmb boot ko Cheikh Fallu boo ma ko joxoon barkeelu fasal ci biir ëmb tëjur ba saadlu ab diir bu gàtt mu ñëw ne jël naa weer mu naa ko góor la tafa yaa nga nee yar ni daana ñëw tawat faju ba jeexal mu jox la kaasub kafe na la naanal nga daal di mu ne la wér na jeex na tawat ji kenn dootu la wax mbaa féex nga ni daana ñëw wànneen bëggat ya muuru boole ca bempeñ gëddi las mu muuru mu dal ni Cheikh Ibrahima Fall juróom yaar taflil ko gëddi wér bu leen ko xiliyaar ijaaba moom amu ci woon am nawle fii kulli fannin mooy borom mu jagle wax na nu bis ne njannitee kaw saaga dana ci foj ay aajo leedik ag ndax ñaan na yàlla rabbuhu boromam ko mënta foj sa aajo doo gis jëmmam jariñu gaag jariñe gaag barkeer ga bamba ko wax bu yàgg mooy junjam ga fatili koog fatili saakam am kattan war na ma war samay moroom attan fàttali kook fàttali saa kem war na ma war samay moroom lun attan ku am karaama te xam na xaybu ku am wilaaya la te daawul salbu amoon na bi Cheikh Salih Mbakke ñëw fa ne ko Serigne Abdoul Ahad Khalifa mu ne ko jàkk ne ko yaa di kooka di yow wuute wu ren laa sakka ndax kooka kër ñëw na sa kër waxtu njël te génnagul ba léegi yaa yoroog pal gis na mu def jëmmam ja def sa jëmm muy jënn jëmm jóg taxaw ne temm murid ya xaaju mu ne fii doy naa yem incha allahu ca kanam da ngeen xam Cheikh Abdou Dieng moom Balla Faali waayam mbokkum Cheikh Balla Dieng mbokk Cheikh Cheikh Abdou Dieng moom Balla Faali waayam saa mbokkum daaram baay te ndaam dig maasam am na fa bis mu bindu ko bataaxal def génn liif ca biir guddal ak gàttul bam talalee leetar ba daf ne liif gi yéen ndongo yi kan moo ca xam jubloom gi Cheikh Abdou Dieng kat de takkal na mam ni ba dongo yaa ngi ñëw di laaj fuñ koy teg jawaab jamooy daf ko ne man du ma cheikh ba may takkal am nekk te bëgguma féex ndegam takkal nga bokki sey ko bamba kay doy na sëkk ñoo yeyoo liggéey bi na ma ci jox am per ma barlo kooko motele yéene ñeem ak la doon jubloom nga fa kër ka fa biir këram fa la ko wér lu yàgg ay fani fan balam ca yéene yegg mu woolu mbay ngiraan ne permis jël ko dal ko ne barke la barkeeloo ko Serigne Assane Salam am ma kës fu ñëw na fa bis naa léegi njaaxum xew fi wote bi jub gis naa deret yi tuuru nit ñi xeex ma gis ca bër yu juuru naa ko sëñ Assane du gis loolu man jàmm lay gis lañ ma wax du loolu bu doon dagay ministère yaa yor armée gànnaay ya ngay gis ay fetal ñuy armée man éducation mooy saa ministère xalima laay gis ak kayit ak lankar jàmm la doon wax jàmm it lay déglu jàmm la yéene ñëpp ay lay muslu alaaji abdou daana ñëw fa kër ga ma ngi koy misaal tiijaan murid defar ga daf na ko ñaan ñu bokk tool di béy lañ sa allahu allah ñu bokk añ dal ko ne jugal nuyoo nuyoo tiijaan yi mu jóg taxaw sargal nuyoo mu wax ne day góob dugub kuy góob dugub du sëgg ñanaa dañoo yab seen sëriñ dug dëgg ne ko nuyool nuyoo murit te sëgg mu ne groupe nuyoo su joot ne tekk mu daal ne kii day gas puloox day sëgg ñanaa dañuy jaamu sëriñ dug dëgg ñay góob dugub ñay gas puloox suulox ca tool ya ñoo bokk seen cere yi ndawal career ya ba mu digee bay jóg mu naa ko ñaanal muy juqi dog mu naa ko déedéet tiflil kont gu fees dellu segu borom ba lub si ña gàtt-gàtt doy bànkam ba saa suñu masaa wuute ci iidul fitri day tëju ñetti fan ba jënelil baari nit ñi di ñëw ku ñëw ku nekk laajte te ba nit ñi di ñëw ku ñëw di laate naa ko wuute gili yi loo ci xatte muna tijaan yi julli barki démb ak it ñi di julli démb ak it ñi faal te wóoruñ woon far ñoom ñëpp laa àndal te fépp laa far léppuk defar ak rafetal ak tàmm di wax baax ci ay jullit ngir jàmm ne yàlla moom yaana ba ñëpp xacci te laal te kenn du lal kenn lu xat bokku toog na ba guddi xaañ mu daal di woote ña koy bindal ñaanam yo du ma ba mu ñëwee paget bu weex la tapi di joxe par ben bay waja nopi mu gis ca bir këyit wu xong xol ko dal ne ki leuf lay xibar ngeen xam ko nestut mu dal di lamuy xibar muy xibaar si bàyyi ña sa làqu ruuga moo fi jaar dal di yor këyit wa dal tay bind Cheikh Ibra Niass làqu na léegi London fajan mu dal ne wàcce len kamil bi bay xat mu ñuy soga xibar tagem ba wax na ne ab cëram ci yàlla reyna na boroomi boot la ay dabam fek ngana amon na gor gu baax ku dëkk njaarim na naaw turam mbokkam la fii doy naayam bam tawatee la daal di wut tàngaayam ak la ca war ko kay ab taawam mu faatu bañ ko jébbalee boroomam wax nay mbiram te diggam ak boroomam daal dina góor yàlla yi am na fab cër wallahi lëm na ay mbiram ba dem far amoon na bis ar soxna siyaar ko ba génn dem mu daal ne kii dab ko ba mu ñëwee mu yëkkati lim jox bam dem mu ne tàngaay la tàgge ko bisab keroog la ñu ko yóbbu Tuuba ca biir barab la yal na nu tàbb Tuuba amoon na kasfu am na ak wilaaya te xam na xëy bu mooy borom diraaya barke ba ak wërsëg ya ak xéewal ya day dotti wel ni waa waxset ak waa ya barke ba ak wërsëg wa ak xéewal ya day dotti mel ni wax si tag waa yaa mbindeef yi mel ni xorondoom di andi fii kulli yawmin raw dimanche ak samedi fu nekk yi bawoofa fa fan yëpp ci réew mi ak ci réew yi wàll yëpp bu ñuy di yóbbante ñëlee ngay poste di def ci ay leetar ñëlay mandaate léeg-léeg nga gis ab camion bu gaare sof toni mbaa pepp dal seere wala nga gis wota bu fer ak suukar mbaa kafe mbaa ataaya ab leetar mboolem kilifa yi ku nekk sahaada jàng fa yalla ñu am sahada ñee fukki ton ñe ñaari ton lo atan ku ne ex yene ak sa man-man xéewal gi tóoru fepp fepp ibawan baawaan kuy gas bu sak jajj ba ne naan barada yak table ya ak kaasam ya cafetière ya ak satala yaak cuuraaya ñuy xelli ay café di xim ataya waxtan wa jolli waji mo raw gaaya tisbari aljuma kusel mal jarfa ñay julli je touba ko rombo awfa kër ga di mel ni màggal ku ne siyaare ki mayam gi yombul teema ne far géej la ku sëgg mandi mbaama ne ab jant ku jaare jandi am na ku ñëw bis ne ko yow mi ñaanal nit ñi ñu am lu tee am ba géejal mu ko man duma birax aw xala ku jonjong man waaye danaa la jafal la jariñu gaag jariña gaag barkeel ga bamba ko wax bu yàgg mooy junjëm ga fàttali ko fàttali sa akam kàttan war na ma war samay morom lun attan ma wax la nag ca tab ga ndax nga waaru xeetu joxeem ma ne su ko lax baaru ñay ñëw di andi na mu toll cib lim ñay ñëw di laaj raw na ko fuuf ku ñëw am yéemu ta joxe mel ni mbir lu rëy rëy lu taaru taaru mbaamu mu seer lu xëy kay andi buy andi kay yóbbu yi yóbbu dara du fekkante fi moo am ca irabbu du konte ay xaalis di jekk-jekkal du def ci ay gaal du compté ay xaalis di jekk-jekkal di dajalee ko xool kayit yu àndul du daj ci ay gaal soxlawul ko parfor sakaat yu wutu ko ci banque Mbafoor saa soo masaa yëkkati million jox ko ci poste la koy sànni ku ñëw mu jox la xamewula ak ka joxe ñaari téeméer ci mel mbir ku yàlla bir nga doon buur moom ne woon na jant bi moo di bànkam lum andi buy dem yóbbu loolu la xam alxamis and alxamis andi la ay teraanga nga ci teral aljuma mooy yaraanga lu ñëw ci bis bis baa moom du jàlle kër gu mag Euh, li mu doon jàng nii ñu ngi leen di fàttali ni wanal sa gox te ñu ngi xamal ak suñu baay sëñ bàcc jigal mii bind bi la téere euh, balaa ñuy ñëwaat ci man bind mi ndaxte waxtu bi li ci bariwul euh, muy soññe bi may fàttali bind na téere boo xam ne mi ngi ko jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine bind ko ci Sëriñ Assane Fall borom Kawsara allah mi ngi ci yoon bi ñu koy móol buñ ci joxee dinañ jëm dinañ jéem ba askan wi jot ci soxna Ami Cissé suñu dégloo lii suñu bàyyi bari sëñ bàcc jigal bind ci sëñ moor euh, donte maa ngi jégalu xëy na yow ci say at am na ci loo xam ne xëy na fekke ko mais ñàkkul nett li boo ci xam te lii tamit ku ko dégg mën a jàpp ni sëñ bàcc mii ko jege woon sëñ moor la te koo déggaloon la. jërëjëf Baye Ibra maa bi di jëlaat kàddu gi waaye di jégalu ndax dama njëkk jël kàddu nag waroon na njëkk nuyu samay waajur bu jigéen waaye xel day fattu. maa ngi koy nuyu te di ko ziar soxna Fatou Dieng ko ñaanam yàgg fi loolu te wér ak sew xadim di ziar suñu yaay yax nañoo jiitu soxna Ndeye Musli soxna Ndeye Maram ak sama bàjjen Aminta Dem di waajur suñu Abdoulaye Cissé maa ngi leen di ziar yàlla fañ tëdd yàlla yokk leen ay leer te jégal leen seen i bàkkaar bàkk sew xadim waaw di wax ne Baye Mbaye Sow dañ koy ñaanal yàlla bu baax ndax euh, suñu xol tooy na wax dëgg yàlla suñu xol tooy na ndax ñun xëy na dañuy ñuy tudd di tudd sëñ Mor Mbaye Cissé muy suñu waajur wu góor waaye ñun dongo gi lañ njëkk a lañ gën a lañ gën a itteewoo te it dongo gi lañ lañuy la ñuy gën a bëgg ndax moom nañ ci la ñuy dox waaye dañuy ñaan yàlla tamit yombal ñu ko bam bañ man koo doon bañ man a doon ay dongaam ndax xam naa ne yombul waaw yombul waaye ñu koy sàkku ci suñ borom mi maye mu dimbale ba boole ñu ci dongo yi ak taalibe ndax ñun loolu moo ñu gën a itteel wax moo dafa doon koo xam ne man ci sama jëmi bopp man man sama ci idole idole la ci ñun waaw dañ koy roy di ko di ko di ko jéem a xam di jéem a xam doxinam ak dundinam di ci jéem a def suñu kemtalaay kàttan ne du lu yomb ci ñun sax du lu ñu man moo tax ñuy ziar bay bàcc di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te mu wér di ko ñaanal ci barke sëñ Mame Mbaye Sy yàlla gën ko fee bàyyi gën ko fee yàggal ndax téeréem bi dafa am solo lool ndax ñun ñi nga xam ay ndaw lañu ñun bi sëñ moo di làqu doon lañ ay tout tànk yoo xam ne daanaka mënuñoo ko lu bëri lu bari dama xam ci sëñ moo ci téeréem bi lañ koy xamee mu nekk lu am solo moo tax bind doon lu am solo ñaanal yàlla def ci barke te buñ ko ñaanee tamit dañ ci rafet jot ndax barke moom yaakaar naa ku ko xamul tamit neexut a xam daal barke neexu neexu lu ñu mën a expliquer mais ku xam kër sañ moom Mbaye si xam ne barke lu am ci kër sañ Mor Mbaye si la te ko ko fa defoon def na ko fa ba noppi te kenn mëntu ko faa jële muy seexul xadim mi nga xam ne lu mu laal a gën lu mu laalut lu mu def a gën lu defut ku mu xam a gën ku mu xamut ku mu suñu yaakaar téeg suñu wéraay lépp Serigne Touba moom def barke kër sëñ moom béy sam nekk loo xamante ne bi ñun ñi mujjee judd xam nañ ne barke ngi ci kër gi te su fi barke nekkuloon suñ juddoo duñ fekk dara loolu nag dañ ciy ñaan ci barke alxuraan bay bàcc mi yàlla may ko barke yàggal ko fi te may barke téeram bi mu bind ci sëñ moom béy Cissé ndax téere bi dafa nekk lu am solo nekk dundinu sëñ moom boo xam ne nii inventé wu ko daf ko fekkee jataay bi ndax man wax na maa moom ba taay ci téere bi mu ne ma lu ma fekke la li ma ci wax lépp lu ma dund ak sëñ Mor la muy def may gis muy wax may dégg kon loolu amul luñ ciy laam-laamee mu nekk dundu sëñ Mor gu leer naa ñu ci bari ma sama wayu jigéen sax laay laaj ci sëñ Mor léeg-léeg mu di ma nettali mu bokk ci li nga xam ne nii bi mu naan bu say bët muuroo mu tifli juróom-ñaari maam Cheikh Raya sama wayu jigéen sama wayjur wu jigéen nee na ma sëñ Mor da ko ne soo bañee silmaxa ci sa dund bala ngaa tëddati di nelaw na nga wax juróom-ñaari maam Cheikh Raya tifli ko ci bët ba fi may wax ak yow dama koo tàmb mënu ma ko ñàkk bañ wax heure bu may tëdd dama koy def mu nekk nag loo xam ne mënu ma ko sax expliquer na sama xol tooy na ndax xamuñu suñu way wayjur ñun xamuñu ko dañ koy dégg rek te lu ñu dégg ci moom rek mu nekk lu ñu doy sëkk kon nag dañuy ñaanal Baye Badji ndax mënuñu ko bañ a ñaanal ndax daf defal loo xam ne mënuñu ko koo fay dañ koy ñaanal yàlla fay ko taxawu ko bu baax a baax di ñaan téere bi nag egg fépp fi nga xam ne war na faa àgg ba tax na sax solo soo su téere bi am moo tax ñu ko téere bi lu mu amee solo war na mën a a yaatu baax te Baye Badji ci loolu ndax maa nga sëñ moo gi weesu ku ne xam ne ne ña nekkoon ca baas ba ku ne yóbbu nga ab téere te lépp ci yëfi boppam la ko defee mm, bëgg sëñ moom rek defar junniy téere ku ñëw yóbbaale nga téere ku ñëw yóbbaale nga téere ngir bëgg a yaatal mbindam mi bëgg a yaatal sëñ Mor Mbaye defu ko ngir bëgg ci dara da koo bëgg a def ngir yaatal kan mooy sëñ Mor Mbaye Cissé ngir xale yi gën koo xam mm. ndax ci mbind lañ mën a xamee lu bari ndax mën nañ la wax tey nga fàtte waaye boo yoree mbind mi ëllëg si biir mën nga liiraan nga nga daal di mm. solo si tax na mën ne ko ah bii téere de ëpp naa bañ a def français ëpp naa bañ a def anglais ëpp naa bañ a def arabe te lépp mën naa nekk te lépp a ngi yoon bi te dina egsi bu neex suñu borom téere bi mu bind ci maam Cheikh Ibrahima bu egg yi xam nga nekk lu doy waar lu yéeme dañu ñaan mu egg ak jàmm ñëpp fekkee war ko te tal ko kenn bañ a manqué waaw moom daal macha allah dañ ko ñaanal rek di ko ñaanal bu baax a baax dëgg yàlla suñu xol daal sedd na lool bàyyi mbay sawit jàng mi neex na wax dëgg yàlla am na leeraay boo xam ne soo koy jàng da ngay da ngay dégg baat yi ni ko bàyyi bàcc waxee te loolu ci macha allah ci ku mën a jàng moo ko mënee noonu ci olofal ndax ku ne xam ne olofal ñëpp ta jàng ñu lay ñaanal bu baax daal di siyaaraat bu baax rek di tuubaat kàddu yi bu baax tamit. gërëm ko bu baax moom soxna Ami Cissé di leeru sëñ Mor Mbaye Cissé may fàttali ni bi émission suñu bàyyi sëñ Bàcc Jigal mi bind téere bi sëñ moor soxna mi wax na lu am solo parce que mbind moom du laaf te dafa war a yaatu incha allah rabbi euh, yàlla mën nañoo dimbali ba mu yaatu ci àddina ba ñëpp jot ci ca loolu la ñu ñaan sëñ Mbaye Sow ñu gërëmaat la bu baax xanaa dañuy jox sëñ Soy bu mbaw Euh, yow comme yow jege nga suñu baay suñu ci jigal euh, kar macha allah boo ñu doon seere waatal lenn ci moom ci taxawaayam ak itam ni nga xam ne noonu lay tatagale taalibe yi ñu ñëw di ko seet si di ko fekk di ko jaar mi ngi ko wax ci wayam bi ñiy barkeelu ci moom waaye ni ñu ko waxee sànq lu jógee li soxna Ami Cissé wax kër Sëñ Tuubaa lu fa defaroo defaroo na ba noppi te kër Sëñ Tuubaa moom ku tudd Sëñ Mor Mbaye Cissé tudd kër Sëñ kon dañ ko ñaan yàggu ànd ak wér ndax xam nañ li ñu sàkku ci moom suñu borom def na ko ci moom waaye kaddu yu ñu doon ci bàyyi bàcc rek lu jiitu ñu ñëw ci soññe bi euh, ak ay euh, ab tënk rek su ko defee ñu mën a tàggoo tàggoo bu dul tàggoo ndax daanaka li des ci waxtu yi euh, bariwul trop si soñ bu mbaw sëñ Ibra waaw comme ni nga ko waxee rek comme ni nga ko waxee rek comme ni ko soxna Aminta mi waxee rek ci la ñuy dellusiwaat ci sëñ bàcc jigal mi moom day dama naan kuñ war di ñaanal la fu fuñ toll ndaxte moom yàggam fi day du ma ne njariñ la ci murid gi waaye njariñ la ci jullit ñëpp te képp kuy dund sax ak yàggam bi sax njariñ la ndaxte bind na ab téere boo xamante nii murit bi moomu ko tijaan bi moomu ko xaadir moom képp kuy dund rek am nga ci wàll muy ndénkaane li kon kooku doonul ne murit ko moom doonul xaadir ko moom ñese na ko moom ñëpp képp kuy dund rek am nga ci wàll comme woy woow noonu mu bind ci sëñ Mor si seen màggal sëñ Mor gii passé defarul na ci junniy woy bañ ko defaree man mii la ko jox ma ànd ak Abdou Majib ñu dem ci sëñ laat bañ demee wax ko ne ko sëñ bàcc nee na moo bind woy da koo bëgg a def addiyee sëñ Mor sëñ laat ba mu ko xoolee dana ñaata la koy wecceekoo ñu ne moom kat nee na wecceeku woo da koy def ci sëñ Mor tax mm-hmm. mu ne waaye moom waroon na koy wecceeku ku ah ko da koy def def sëñ Mor tax ca baas ba bañ demee ba cérémonie ba commencé ñu séddale ko ca baas ba ba ñëpp mat te noonu mu koy defalee sëñ Mor noonu la koy defalee sëñ Amdi Xadi Fall di ko defal sëñ Asan Fall mm-hmm. am na woy woo xam ne def na ko Asan Fall xëy na mi ngi ci waaye nag dafa yeex balaa yàgg dara bu soobee yàlla noonu it la ko defee ci soxna may moom Serigne Touba kon képp ku kilifa gu baax rek mi ngi jéem a def ci yow loo xamante ne dana tax ñëpp xam la woy mu bind ci sëñ Mor def ko ngir leen lu dul nit ñi xam sëñ Mor rek képp koo xam ne nag fekke woo jamono sëñ Mor xamoo ci moom dara soo tiimee téere bii da xam ci sëñ Mor loo xamante ne lu wér lay doon te fépp fee nettali tamit duñ ne la kala wax loolu xamul ci sëñ Mor fépp foo ko wax day ne la ah kooku ku xam sëñ Mor la ndax moom lu muy wax danaan maa fekke te fekke na dañ naan bakkan lay laaj boo nee sëñ moor nee ma wala fekk naa bi sëñ Mor ne nangam bokkut ak nga ne sëñ Ibra nee na ma sëñ Mor nee na loolu day doon wax ju wér a wér a wér kon li muy wax ni nii ci sëñ Mor dafay doon loo xamante ne lu mu fekke la kon nañ ko gën a ñaanal bu baax mu yàgg fi loolu te ànd ko wér ak bépp jullit ak sama sëriñ bi toog mi soxna Aminta Cissé sëñ son yi wax nañ ko sànq muy ko jege suñu bàyyi sëñ bàcc jigal damay seerawaat rek tuuti lu jiitu ñu ñëwaat ci sëñ mbay saw ci beneen soññe bi nga xam ni sëñ son yi bu mbaw wax na ko sànq képp koo déglu man loolu laay wax chaque jour képp koo déglu ca bàyyi ci xel waxuma nag déggandeem mais ku ko déglu lu mën a defar jamono la donte tuuti lañ ciy mën a am ndax ni mu demee la xataay bi waaye ku déglu ko ne mën na defar adduna man loolu laay wax. ku dégg kàllaama gi nga waxee tamit wolof moo tax soxna si wax dafa am solo yaatal ci làng bo ne dafa am solo parce que adduna fi mu nekk soxla na lu mel nii suñu bàyyi bàcc jigal muy bind léegi service may def lu jur ma ñëwaat suñu mbay saw ci soññe bi euh, soxna Ami Cissé man Baye Bàcc mi dañ ma booleeg moom sama mag bu góor di ab taalibe di sëñ bi ci am siga mu wax ma ne fexe ba mbir mi yaatu sëb céet la bu suñ borom séddee wallaahi loolu laa ciy dox mu xamal ma ni junniy téere yi mu def ci màggalu si mu bay Cissé maa ngi fa woon di ko séddale séntu ci dërëm li muy bind ci kër maam Cheikh bi séntu ci dërëm ndax ñiy bind dañu dem yóbbu ko bey BCA protéger ko di ci wut xaalis bu ko télé yi tege wala rajo yi ñu am ci seen droit d'auteur waaye moom ki muy defal moo ñu defal. mu yàlla suñu borom. mbokk yi kon euh, wanal sa gox ma koy fàttali fii ci kër gu ma ko lañ ko amalee ci kër suñu baay sëñ bàcc jigal mu sëñ Mbaye Cissé euh, ginnaaw nag euh, li ñu mayoon ci waxtu ci plateau bi nii mat na sënkam dañu jox kàddu gi soxna Ami Cissé présenté nañu ko sànq ci tàmbali bi muy leer ci sëñ Mbaye Cissé mi nga xam ne moom suñu baay bàcc bind bind mi di fàttali ni ci dundam soxna Ami kon ñu bàyyi la nga ak mbokk yi sax télévision bi. may taggo to bu baax di nuyuwaat ñi ma toogandool ci waxtaan wi nuyuwaat Baye Mbaye Sow bu baax di nuyuwaat sëñ soin bu mbow di nuyuwaat bay Bàcc Jigal ak sëñ Maxtaar Juuf me toog di tàggu waa Njaareem tàggoo bu tàggatoo émission bi moo jaan émission ko nga xam ne ay waxtu la ak ay heure heure bi moo jeex waaye waxtaan bi des na lu bëri ndax téere bi des na lu bëri waaye nag dafa fekk ne téere xajut ci ci émission waaye comme xamal nañ leen ci li gën a am solo ci njëlbeen gi wax waa Ndiarème ne Baye Bàcc mii mi fii wax nga présenté nga ko présenté fi mu dëkk ak solo si téere bi am ak moom itte jëm ci am rek mooy wane sëñ Mor Mbaye la ci bëgg mu nekk loo xam ne nag téere bi la ko mën a jaare ndax mu kër gu ne mu dugg fa ne kii sëñ Mor kii sëñ Mor waaye bu téere bi tasaaroo ba ñëpp jot ci rek yaakaar naa ku nekk li ci itte di ko xam ñun moom xam nañ ne téere bi am xamee ñun njabootam gi nga xam ne ay kon ñu ngi la ci sant di ci gërëm di ñaan sa taxawaay gën yàgg di nuyu bu baax jàll mi ngeen àndal di nuyu sama doom ji di caméra nga xam ne sama doom la doom yi doom yi sëtu sëñ Albasi Seck nga xam ne kenn la woon ci kër sëñ moom maa ngi koy nuyu di nuyu kilifa ga di Babacar Sall sama xarit la maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waan waa Njaam di tamit kàddu yi lu ma fi yëkkati daal tam nekk njumte rek maa ngi koy jéggulu di nuyuwaat sëñ Abdoulaye Cissé di ko ñaanalaat mu gën fa yàgg gën a wér barke sëñ moom Mbay Cissé naa Ami Cissé mu Cheikh Mame Mbaye Cissé sëñ Mbaye Sow kon xam naa ñu tàggoo tàggoo bu dul tàggoo. waaw waaw bokk taalibe yëpp rek tey sant barkeb sëñ Touba sa borom ba dolli xéewal ci ñun ñëpp rek ah, xéewal ju kawe suñu jotu yàlla ñu ko sëñ Touba defal gudd gu fan gu ànd ak wér ci barkeb sëriñ Mame Mbaye Cissé ci barkeb sëriñ Mame Mbaye Cissé barkeb sëriñ Mame Mbaye Cissé. waaw sëñ Ibra waaw yi de am na solo lool am na solo lool yow it de ñu ngi lay sant baax di la gërëm ndaxte lii lépp sa pëseef ak sa bëgg lu baax moo waral lii lii ku ko yàggoon a bëgg nga topp nga ci nu ne waaye nag tey jii la ko suñu borom dogaloon nañ leen ci ñaanal bu baax nag suñu borom may la fan gudd ak wér gi yaram ak ñi nga ñëpp di liggéey ñoom ñi nga xamante ne ñoo yor wàllum caméra bi ñu ngi leen di ñaanal ñoom di leen ñaanal yàlla na suñu borom may lu kawe seen jot ba lépp lañ bëgg seen liggéey bii rek yàlla na ko suñu borom defal barke sëñ Tuubaa yi bu mbaw kon dañuy fàttali rek ni ñu ngi woon fi nga xam ne moom moo di kër gu mag Euh, ci kër suñu baay suñu sëñ bàcc jigal mu Cheikh Mor ci Cissé mu bindu lu am solo euh, ci sëñ Mor Mbaye Cissé di ñu misaal leen ci dundam soxna mi Cissé mi ngi koy wax sànq lu bari ci seen waajur wu teddoo ci bindum suñu bàyyi sëñ bàcc jigal mi lañ ko xamee euh, ak ñu bëree bëri ginnaaw loolu mu bind benn téere boo xam daf ci soññ askan wi ci bàyyi xel ci àdduna ak dundu àllaaxira mu nekk lu am solo beneen téere bi nga xam ne mi ngi ci ñu ngi koy móol pareegul mu ngi ko bind ci maam Cheikh Ibra ak Serif Assane Fall ki nga xam ne moom moo di suñu am di xat yi ñu leen di ñaanal ñoom tamit yàlla yàggal leen suñu kam tamit ànd ak wér euh, ñu toogoon mooy soxna Ami Cissé waxoon naa ko sànq leeru Cheikh Mor Mbaye Cissé la ak ki nga xam ne moo di sëñ Mbaye Saw bay Fall ñu xam ko moom tamit mu taxaw taxawaay bu rafet bisu it bu nekk ci fa ñuy jàngee wala fa ñuy jullee bisu it moom ak sëñ Tuuba gi xasaayit ñu ko ñaanal baat bi yàlla gën a wéral baat bi ak sëñ soyu mbaw mi nga xam ni euh, loxo ndeyjooru suñu bàyyi baat ci jigal la gërëmaat bu baax Baba njaay bi nga xam ne moom mooy chauffeuram gërëm bu baax ki nga xam ne moom moo di sëñ Gora Diouf la ah Makhtar Diouf voilà moom tam ñu ngi woon moom ci jataay bi gërëm bu baax Gora Diallo directeuru euh, télé bii di Moubarak TV waaye tamit di directeuru beneen télévision bi ñuy tuddee Diourbel 7 TV moom tamit di liggéey lu am solo ci wàllu film fii ci diwaanu Diourbel gërëm bu baax suñu rakk ji di moo Modou Diouf gërëm bu baax yëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan lu jub ñu ngi koy sante borom bi ci moom la lu ci dëng ci ñun la lu baax lañ ci jublu woon daf di yàlla kese moom moomat gërëm leen ñaanal leen war waaye jàmm bu teer ci gaal bu ngëneel dig leen euh, daje boog ci baneen wala sa gox bay bàcc yàlla yàlla yegal taxawaay bi jaageen jëf